secret laa la wax. Euh, euh, euh, mbir yow si diggante ak Modou Lo. je pense que su ma juumul. lamb ji am na ku tëgg ba lamb dafa taxaw. man jàpp ko le premier janvier. Mm. incha allah léegi am na lan nga. ñu ne ñu ne sax ñoom waaw dinañ ñu may sax tuuti ñoom ñaar lu ñu gisee arène bi. Mm. ak lan lañ ci wax mais fi ñu ton sa diggante yow Modou Lo. Mm-hmm. Uh-huh. sa diggante yow Modou Lo. waaw mm-hmm. loo bëgg ma wax la ci. waaw parce que il paraît dañ ko tëgg ba mu taxaw. mais Balla dama laaj sa diggante ak Modou rek mel ni da nga xaw a absenté wala. non dañuy absenté parce que Modou bëgg leer rek ah. donc bëgguma <laughs> wax leen loo xamante ne. Ah. donc boo ma posé si question boobu dama la koy laaj. Mm-hmm. est-ce que am na. am na waaw. dëgg ah. mm-hmm. nañ ko ba ku laal avance. waaw yaa gën a yaakaar naa. le premier janvier bii ci lañ ko tëgg. incha allah waaw mais dama déglu euh, ki nga xam ne moom mooy Maodo Malick Thiandou. Mm-hmm. maa ngi ko nuyu de passage mu ne. ci làmb jooju ci diggante Balla ak Modou Lo dina arrangé Balla buñ ko yóbboo euh, mois de juin. wala yooyu fekk Balla gën a préparé waat moom li mu gis nee na Balla il n'est pas encore prêt Balla bi mu gisoon il y trois ans wala quatre ans nee na moom ba tey gisagul Balla boobu donc bu ñu ko précipité bu ñu yàkkamtee Balla ba bërile ko premier janvier loolu avantage yu Modou Lo la merci beaucoup loolu la Malick Thiandoum wax mu ne loolu avantage Modou Lo la su ngeen bëree làmb ji euh, le premier janvier yow am na looy wax ci loolu waaw du ma ci wax dara parce que aussi tamit euh, ñu ko ma waxee xelam moo toll foofu je pense que ku jóge ci compétir bëre 30 minutes naanul ndox busul fu muy taxaw donc nga ne moo gën a pare donc xëy na peut-être sa xel moo toll foofu. man damay bëgg chaque jour rek amateurs yi wala ñuy seetaan làmb li ma def ci làmb bëri na ñu ko deful ci làmb. ak ba làmb sosoo ba léegi. 2005 laa dugg ci làmb sept ans laa def nekk roi des arènes daan samay morom daan samay mappandoo daan ñi ma mag aussi. donc loolu nekkul yomb ku parewul doo ko def mbëgg ñu bàyyi xel suba suba sax man pare naa parce que su ma liggéey maa ko bu def mooy ni ma la wax boo gisul nit nekk nag aussi tamit xamaloo ko lu bëri donc mun nga waxee neneen wala genre nu mu demee noonu mais man sama combat ak Modou Lo ak keneen kum mun ci doon sax yaakaar naa bu ñëwee suba suba pare naa te man li may faral di wax rek moom taxumaa jug li ma tax jug mooy dama soxla suma couronne géejawaay sas ma sama supporter sas ma ma am loo xam ne perte naa ko man moom laa soxla hmm. boo loo sama combat Gris Bordeaux wax naa leen ko bien vrai que combat bi taxaw na mais sama objectif mooy que ma jël sama titre jël nekkaat sama roi des arènes loolu moo nekk sama ambition combat bi fi taxaw rek taxaw na dëgg la mais li sa li nekk sama ambition dëgg mooy ma nekk roi des arènes te bu soobee yàlla gëm naa ne deux 2019 incha allah dinaa ko nekk. mais Balla ah, ak Modou ak ni mu amee bi envie Modou Lo am est-ce que engouement bi nekk ci ginnaaw lamb jooju yéen a ngi koy bàyyi xel bu ngeen fàttali ko seen première lamb gis ngeen réew mi ni meloon euh, ambiance boobu ne ci lamb jeeg engouement beeg ak yéen seen i supporters est-ce que yéen waaj ngeen loolu bu baax a baax a baax. te danoo bokk supporter. waaw waaw parce que. ku bëgg Modou Lo bëgg yaawa ah. yaawa est-ce que xam nga ñoom ñaar. Ah. bu bu fekkee kenn ki mooy bëre. ay supporters yu kii dañuy dem far ci kële bu fekkee keneen koy bëre ay supporteru kële ñoo bokk ay nit ñoo bokk ñu leen bëgg ñoo bokk ñu leen bëgg ba pare ñoo bokk ñu leen bëgg làmb la boo xamante ne si kaw boo xoolee hôpital day bëri cardiaque cardiologie waaw day làmb bu boo xam ni làmb la bu ma neex te doo mm. ci man waaw ci ñaari côté yëpp nag du làmb joo xam ni dégg ma wax ci moom parce que ñaar ñi koy bëre ni ma mel ak ñoom a tax. alors alors ba ay manquant lañ boo fi defee moomu. ah ah, ah. <laughs> ba pare non. waaw seen supporters yi ay manquant ah. la ba faw. wallaahi wallaahi waaw moo tax fa xamante ne Amdy ak Aba wax nañ ko yow nan nga ko jàngatee. non amul enjeu. Ah. pour man amul enjeu xam nga koo daan ay 21 secondes. Hmm. donc yàlla dogal. mais est-ce que Modou ba nga daanoon boobu noonu benn la exactement. Hmm. dara dara changé wul. nekk na la question ah, ah, rek xam nga xam nga làmb moom lenn moom da ci am. nga nekk di compétir kii yàlla dogal ngeen bokk yoon nga daan ko fa dem seeti leen mu nekk ci yoon bii nga nekk ci yoon bee yàlla dogal nga bëre nekk roi des arènes bàyyi ko ci ginnaaw moom mu am objectif boo xamante ne moom man rek la bëgg a bëre. ah waaw mais parce que xam nga làmb loolu la. ku la daan da ñaan yàlla bërëg moom après nga. jëlal ok donc man. aw ma ci benn pression wax dëgg yàlla. Mm. parce que koo daan ci vingt et un secondes ngeen yàgg xam nga fekkante ay mbapat man aw ma ci. <laughs> aw ma ci zéro pression. Balla Gaye kii kii ba. aw ma ci pression yow kii wul na ma ci pression. <laughs> Lo. franchement donc man moom boo bëggee dégg-dégg. yaaw mm. ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci bis beeg jàmm. fi ma jaaroon léegi laay jaar kon yaa ngi naan Modou Lo avant ak léegi benn. non non en fait am ñoo nit ñoo xamante ne. kon li ma koy faral di tooñ jaar yi dama naan ay ginaar kookali lañ parce que ñii dañuy màgg ñii du ñu mën màgg. loolu day am aussi tamit. muy muy ginaar kookali. xam nga ginaar yi xam ne du am du am karaw fii di toog. non man ma laaj man dama lay <laughs> tontu sa tontu je pense que ginaar kookali dafay am. am ñoom mën nañu màgg am ñoom mënuñu màgg. loolu dafay am ci sportif au niveau. waaw eh, am na ñoo xam ne fo. même taay kan moo màggul ak kan man la màgg naa. Ah, ok yaa loolu. loolu suñu nga ñu newu ci. Euh, ndax damay seetlu damay seetlu mbër moo teg ci plateau bi. Ah. lu ko neex lay wax. mais ñun loolu ñun géré wuñ ko. ñun loolu ay doon keer ñun loolu suñu yoon nekk seen xeex bi ñuy xeex ñoom. exactement ah, waaw comme ni mu ko waxee alors euh, question commune la pour hmm. Gouye Gui comme pour Balla Gaye tey gis nañ ni entamé ngeen benn xeex bu am solo euh, contre li nga xamante ne mooy CNG alors fan ngeen ci tollu exactement njëkkeel waaw ay ca bàlle dama <laughs>